وقل بكام على سادات الأموات أبي alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah Mbacke ñu ngi lay jaar bu wér ñaan yàlla mu yàgg taxawaay bi guddoon fan bi te wéral cëri tëggaat leen ba ñu yees ñun ñu ngi tudd Bassirou Seck di liggéey ak américain yi nga xam ni ay jullit lañu muy kuréel bu am solo bu nekk Amérique maanaam ñi nga xam ne ñoo fa am ay entreprise te am fa njëriñ ñoo boole seen bopp ci benn kuréel bu tudd NMBC muy National Muslim Business Council di toll si ñetti junni daanaka ëpp na ko ci ay nit yoo xam ñoo ko bokk ànd ak seen kilifa nag daal ne dañoo bëgg a jël diine ji def ko muy leen jokkale ak waa Sénégal ci wàllu tourisme ñëw xam si seen diine ndax ñu si bëri ajuri lañu waaye daanaka diine ji ñoom dañu fay dund ji nekk fii moo leen ko gënal moo tax ñu ñëw nag saytu ko waaye bii ñu it ñu ne dañu indaale sërite sërite bi mooy lépp loo xam ni sumb la mu dib liggéey boo xam ni am nañ ko fii fas nañu ko yéene ànd ko ak waa dëkk bi ñu woon nag duñ dem fenn dañ jëkke fii ci Sëñ Tuubaa ñëw fii serti la nga ñaanal leen bu ko defee ñu daal di tàmbali li nga xam ni moom mooy tournée bi mu nekk wàllu tourisme religieux ak investissement ñu sant nag waa Hizbut-Tarqiyyah bu baax a baax a baax ndax lépp loo xam ne war nañ ko xam sëñ bi daanaka ñoom leer nañ ko moom leer nañ soxna Bali it teraanga yi réy na lool rëy na lool moom nag nee na sax da koy yéex a ma ne ko kon de xam na boo ko euh, teeloon yëg kon moom daal sant bu baax a baax a baax di la présenté délégation bi kii mooy David Kee Hassan moom mooy seen kilifa kii mooy Moussa Dan Fodio kii mooy imam ratib ba nekkoon Atlanta Masjid am na imaamu Texas Abdou Karim am na ki ñu àndal nag ambassadeur ak envoyé spécial bi nga xam ni président bu Sierra moo ko jukki seen biir ngir dooleel leen nommé ko ambassadeur muy Waly ànd ak nag ki nga xam ni moom Waly Chamsidine ñu ah, ni Waly Chamsidine moom ambassadeur bi ah, président bu Sierra Leone mm-hmm. ngir dooleel leen mm-hmm. ngir seen kàddu mën a jëpp ca kaw mm-hmm. ngir ñu mën a sawar ci ñibbisi mu may ko doole def ko ambassadeur dénk ko wàllu trade ak investment maanaam muy commerce ak investissement moom nag daanaka moo leen dajale ñun ñoom ñëpp waaye nag nee na Sénégal moom ku bëgg sumb dara mu sotti fi nga koy njëkkee naam sera la woon lañ ko waaye moom fii la koy sumbee mu ànd nag ak ay jigéen ñu am solo mu ci gën a ràññ ki nga xam ni seen journal bi gën a mag muy Muslim Journal bi nga xam ni Malcolm X moo ko defoon boobaak léegi am na juróom benn fukki at hmm. moom moo ko jiite muy sista Aïcha Moustapha moom mooy journal bi moom moom moo njëkk a tiitre Jumaay Touba def ko à la te boobu ñëwagul fii hmm. mu ne woon nag lu mu xat xat xat même bu délégation bi ñëwul moom dana yollee ko ñëw moo mm-hmm. bëggoon nag nga ñaane ko baax a baax ndax moom moo mën a fësal liggéey Sëñ Tuubaa foofu ndax journal bi moom mm-hmm. dana génn si juróom fukki état yi mm-hmm. ak yëpp ay bés bu nekk mu buggoon nag bu fi jógee lii fi nekk ci liggéey bi ndax liggéey ba kat daayira baax na waaye ñoom ñooy liggéey bi yi baax na de waaye liggéey bi si ñoom ñii la ndax dañoo bëgg a ñibbisi bëggoon daal nga ñaanal leen loolu gën a jàppandal ba at mu jot ñu fi ñëw benn ñaar ñett ndax ay junni junni ñu ngi toog kon Mbacke foofu rek laay yamale kàddu yi di sant bu baax di la gërëm di ko tëjee nag béytu maam Cheikh Samba ndax dañu woon bu sëg sëgee ba ñu wéral li tax ma jóg di ko biral kon yooyu yoral seen jàllale sa kanam kon ay jàllale sëñ Touba moom la ñuy yër fu mu nekk nii jërëjëf. na nga tudd. Bachir Seck Bachir Seck Bachir Seck. ok. jox kenn mu wax rek. jox Sombari. Sombari was on the

possible. That is our history and our story in America, taking impossible circumstances and making them amazing and beautiful. We say simply that we were taken from this land, but it is Islam that has brought us back. We have 44 people here, but there are over 1 million African American Muslims. And I heard the sisters saying when they look around, they see their sisters, their aunties, and their grandmothers. And for the brothers, they see their identical friends and people they grew up with. when I look at you, I see my father. So we know we are one people. And this is just an opportunity by Allah's hand that we come together today. To share the blessings of Sarin Tuba. and the blessings of being Muslim. There's only one word that matters, and that is La ilaha illallah. And that's what unites us. Khalifa, we are honored to be with you. We pray that Allah gives you long life. we would never know that you are of your age the way you smile always. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ñu ngi am mbégte mu rëy rëy tey. we are very happy to host you. Eh, ci eh, yitte jure ji ñu def. this great move that you guys have made. jóge Amérique ba ñëw fii ci Touba. all the way from America to Touba. ñu leen def nañu yitte ju rëy. you make a great move. def nañu loo xam ne duñ ko rëcc mukk. you done something that you will never regret in your lives. Eh, islam l'islam rek lañ tax a jóg ak sëñ Touba. if you come for Islam and Ahmadu Bamba. li ñu def duñ ko rëcc mukk. incha allah you will not regret at all. incha allah daañu gis njëriñam. incha allah you will see the success. ci dundu tey gii bu dul àllaaxira it daañu gis njëriñ ci dundu tey gii. in this life on earth and in the hereafter. Ah, mm. gëm nañ ni xam nañ ñoom li ñu wax li ñu war dëgg la ci ñoom. we can feel and know that you are definitely you mean what you say right now. kon dafay daal di mel ne ñoom. ñoo bokk léegi bay nañu ñëpp. ba tax na gis gi nuñu gis mbégte mu rëy la ci ñun. gën a gën dana sunu xel dana gën a dal ci temps bi ñu toll. incha allah we feel more confident in these times. temps bi ñu toll lëj na lool. it's a time of crisis and hardships and uncertainty. te l'islam moo ko mën a sauver. only Islam can save this world. that's right. Allahu akbar. takbir. rawatina ci nag Serigne especially when you move with Cheikh Ahmad Bamba. moo jif loo xam ne eh, yéem na borom xam-xam yëpp. than something that is unheard of that is unknown to all the learned people. jamonoom. in his times. borom xam-xam yi lislaam yi ñu bëri lañ ci Mauritanie. most of those learned people those academia was in Mauritania in the northern part of Senegal. yàlla doo ci def ci dogal sama borom ba foofu lañ ko mujjee yóbbu. by the grace of Allah he was sent to exile to Mauritania so that he can go and compare himself and beat those learned people in Mauritania. borom xam-xam yu bëree bëri ñoo ko wër foofu. there were a lot of learned people and academia in those days in Mauritania. di seet mbiram bu baax a baax a baax. so they just you know just were doing his background check texting him see if he's the real ñoom ñëpp ñu maase nangu ko woon. and they've all finally accepted that he's the right man. xam ne kii nitu yàlla la. that this is a man of God. xam na ne kilifa bu mag la ci nit yàlla yi. so this is one of the most outstanding leaders in the man of God. Eh, loolu fa tabarakallah kon eh, monde bi yëpp la fi la fi ñëwal. so he is for the whole world, he is for humanity, mankind. xëy na xamuñu nañ ko war a xamee waaye monde bi yëpp ko xam. maybe you don't know yet but a day will come everybody will know that he is for all mankind. nii ñu def moom tegtal la ci. so what we've done is just a sign that definitely his work is universal. moo tax ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax. that's why we are very happy you today. thank Allah. for you coming to see us. ñu ngi ñu ngi leen di sant yàlla ñoom bu baax a baax. and then we we thank God for you coming. di leen sant ñoom seen bopp. also we like to thank you too. mais nan la ñu nañu xam ne maa ngi leen di wax ne jërëjëf. no that you like to thank you deeply jërëjëf. thank you thank you. thank you. yàlla nga sonn woon. kon ñu xam ne sama xol sedd na bu baax. ñu ngi ñaan bu baax a baax a baax. yàlla sàmm leen. te musal leen ci bépp safaan. gën leen a ubbil chance bu rëy nag seen diggante ak yàlla ak seen diggante ak. ngeen ngeen gën a sóobu ci diine. so that you can be more committed engaged for Islam. na mu gën a sell. in a very pure way. bu loolu amee. so if this is achieved. dañ ko yëg seen dund adduna gi tey. then you will feel it in in your life on earth. Mm-hmm. rawatina ci nu àllaxira. not to say not to mention in the afterlife. jërë ngeen jëf. thank you so much. thank you. jërëjëf waaw góor yow itam. jërëjëf Mbaye dégg na taxawaay bu baax. ndam la nga ci jàmm. alhamdulilah bisimilah. ñu ñu ñu nootu. Oh, profité ci yow la gën sëñ Tuubaa. alhamdulilah Mbaye. loolu leer na. bismillah amin amin amin amin amin amin Mm-hmm. Everything is inside Al-Fatiha. jërëjëf waxtu bi daa jot dañoo noot dañoo noot waxtu bi daa jot li ngeen am kenn am ko

de cette euh, nouvelle collaboration entre Touba et euh, cette entité Oui, je crois que la première perspective, c'est une, une, perspective culturelle. Parce que ces gens qui sont venus aujourd'hui ont rencontré de la foi, ont rencontré une bonne culture. Ces gens euh, ces gens ont senti qu'ils appartiennent, à, qu'ils appartiennent à un peuple noir. Et ce peuple noir a été caractérisé par la visite de Touba. Et Touba est juste la première étape. Ils vont partir dans d'autres foyers religieux, essayer de découvrir quels sont, ces, quels sont leurs, leurs, ancêtres et qu'est-ce qu'ils ont fait dans, dans, dans l'islam. Vous, vous êtes, vous, vous, je crois que vous, croyez, vous savez pertinemment qu'il euh, il euh, y a une idéologie nouvelle euh, que des personnes mal intentionnées sont en train de développer par rapport à l'islam noir donc les faire, unir, les faire venir ici au Sénégal, les montrer l'islam authentique que nous avons est une, occasion d'or pour déjà redoser le blason de l'islam noir. C'est une perspective très importante. Après ça aussi, ce sont des personnes qui sont venues dans le cadre de l'investissement, dans le cadre de l'humanitaire, dans le cadre de la santé. Ils sont en train de voir très calmement quelles sont les perspectives qui peuvent, qu peuvent les intéresser dans, cette, dans Touba. Touba est déjà la deuxième ville du Sénégal. avec un, avec un taux de croissance euh, très rapide. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Maintenant, nous sommes là aujourd'hui en tant que talibés, en tant que personnes qui viennent ici pour se revitaliser. Après ça, nous, nous, nous allons voir les différents points de collaboration. Alors, nous gunge délégation bi jóge état bi lan lañ mën a jàpp ci gi. waaw kay basmala ñoo ngi xam dala di wéru ci xawka la di sant yàlla moom as te julli di selmal ci seydul kaw ni di wax ah, jërëjëfe Serigne Touba ah, jaraw la ak Cheikh Rahma Fall euh, di ñaanal Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou mu yàgg fi lool ci ànd ak muy mel ni dañu fi ñëw euh, ci euh, ndigalu ministère du tourisme ndax ñun la suñu borom dogal ñu jiite direct direction de la promotion touristique mm. bi nga xamante ne mooy kuréel nga xamante ne moom mooy saytu euh, xar kanamu Sénégal fii ci cim réew ci bitim réew muy mel ni nag tourisme religieux day lu day day day buntu bu bees boo xamante ne gouvernement bi gouvernement bi daf ko bëgg tàmbalee di ko suuxat ndax it bi ñu wax tourisme ñu bëri dañoo jàppoo di da ngay ñëw Sénégal daanaka def defi caaxaan wala fo waaye am na beneen tourisme boo xamante ne bu sell bu rafet loolu mooy ñii nga xamante ne ñoom ñi ngi jóge ñi ngi ñi ngi jóge Amérique doon ay nit yu ñuul doon i jullit war a ñëw fii Sénégal dem xool bërëbu bërëbu Sénégal yi tey ñu ngi Touba waaye da ajjuma war nañoo dem laa Yoof euh, samedi war nañoo mën a dem Tivaouane jéem a xam lan la lan la lislaam doon dëgg-dëgg nit ñu ñuul ñi nga xamante ni ñoom it yàgg nañ ci lislaam te xamuñu woon lan la lislaamu Sénégal am mooy lislaam bi am te moom la alayhi salaatu wasalaam woote lislaam bi nga xamante ne mooy lislaam bu sell amul benn rax ndax daa mel ni daa am ñu jug bëgg a lislaam fee si réew mu ñu nekk boole ci nag am ñoo xam te ne dañuy tuumaal nit ñuul ni yoruñu lislaam goo xam ne lislaam gu dëgg la kon loolee waraloon ñu indi leen fii ànd ak ñu wax Serigne Bassirou Seck nga xam ni moom daanaka moom moo indi délégation bi ngir ñu xam dëgg dëgg dëgg dëgg lan mooy dëgg dëgg lislaam te xam naa ne xam dëgg dëgg lislaam boo duggee biir Touba jàkkaarloog Serigne Mountakha mi nga xamante ne moo jox añ te ñu yendoog moom boo fi génnee gis jumaa ji dégg xasida yi dégg alxuraan bi gis xale yi ni ñuy jàngee soxol dina dundaat nga xam ni dëgg dëgg lislaam am na fi weesoo tukki ngeen may ko ji Mhm. lan la ñu mën a lëkkaloo. nag xam nga ñoom seen xel dafa xarañ ci wàllu nees war a mën a def ba gis seenub njariñ boole ko. seenub la fi gën a indi Afrique nag day njariñu lépp ñi nga xamante ne buñ jugee Amérique leen fi gën a indi mooy seenub njariñ lan lañ war a def ba lii nga xamante ne am nañ ko ci ay compagnie indi ko fii mu dox ñoo ngi tàmbali di ko xool kenn ku nekk bi nga ñëwee yaa ngi xool domaine bi nga nekk fan nga ci mën a investir lan nga ci mën a dox Touba nag muy dëkk woo xamante ne sëriñ bi daf ko daf ko daf ko tënk ci liggéey képp koo xamante ne nag bëgg nga liggéey gis nga lu la fi intéressé boo jaaree fi nga war a jaar nanga fa am ku ci war a gis boppam gis si boppam. jërëjëf jërëjëf. tabaarkalla daan def at mu jot ñuy def seen convention annuelle foofu ci Amérique ren nag ñu dañ ko bëgg indi ci Afrique ñu tànn Sénégal indi ko fi muy seen convention annuel ñu ànd ko ak euh, Muslim Journal bi nga xam ni. mooy journal bi nga xam ne mooy fësal li jullit yi ak li nga xam ne ñëpp moom la ñuy def ci Amérique ànd ko ak euh, le bureau le cabinet de l'envoyé spécial du président Malick pour le commerce et l'investissement mu l'ambassadeur Walid Shamsidine ak yeneen organisation yoo xam ni ñoom ñoo booloo pour ñëw euh, dugg nag ci wàll li nga xam ne mooy tourisme religieux ak d'investissement kon ñu ñëw fi pour wàllu diine gëstu diine gëstuwaale seen bopp waaye tamit ñëw fi pour xool naka lañu mën a investir fi nga xam ni moom mooy Afrique rawatina Sénégal. Mhm. alors bu euh, la ñu mën a jàpp kuréel gi waaw loolu am solo ndax ñëw tubaab bi wane na ko euh, que ni am nañ yaakaar ci Touba te incha allah rabi comme ni ko waxee sëriñ bi dañu fexe ba gën leen a jokkale bu ko defee ñoom ñu di fi ñëw waa Touba yi di dem pour ñu mën a boole sunu doole ànd doon benn. ndax lislaam moo nu boole waaye itam xeet boole nu te ñoom bi ñu fi jógee léegi ëpp nañ ñeenti téeméeri at comme ni ñu koy waxee kon suñu borom bu dogalee ba lislaam bi nga xam ni moom la ñu amoon ba ñuy dem ñu mën ko jëlaat ba boobu mu indiwaat leen fii dañuy xam ne lu bëri nag mën na sa juddu ci wàllu partenariat ak échange ndax université bu bees bii euh, xam nañ li nga xam ne moom la sëriñ bi nësër te am na ci fànn yu bëri yoo xam ni ñoom daanaka euh, làq nañ ko ba noppi. te dana am solo ñu xool tam boo partenariat sur le plan universitaire lu am solo lay doon ci euh, wàllu tam infrastructure lu am solo lay doon ndax am na si ñoo xam ni dañuy liggéey ci wàllu infrastructure fa ñu nekk te dañuy ñëw pour xool lan lañ mën a def te Touba soxla nag par exemple assainissement am na ñoo xam ne dañuy ko ci wàllu assainissement bokk na ci li nga xam ni euh, doon nañ ko waxtaanee laata ñu ñëw dafa xat nag ak sëriñ bi waaye yooyu dinañ ci dellusi incha allah ci gën a yaatu ba fexe ba li nga xam ni moom la dëkk bi am ci jàkkoonte ci wàllu ndox ak assainissement ñu dugal seen loxo ndax yàlla am na lu mu ci may. te yëg nañu ni am na ay jafe-jafe. yooyu itam danañ ci taxaw ci wàllu tam euh, échange wàllu màggal gi ak wàllu daal li nga xam ni day jëmale dëkk bi kanam ñoom am nañ ci ay pexe yoo xam ni ay jurit lañu tey ñëw nañ Sénégal pour jaar ci kër diine yi ndax ñoom dañ dañuy jaar à travers l'islam pour pour mën a def li ñuy def ndax jàpp nañ ne l'islam lim na jàngal ci ak njub ci ak maandu ak ci nango liggéey buñ ci tënkoo kon war nañoo mën a liggéey Sénégal ñoom na yaakaar boobu lañ fi am ndax dégg nañu islam bi am Sénégal euh, daanaka amul feneen loolu nag yaakaar bu réer boo xam ni ñëw nañ fi ñoom nag diine dañ ko boole ak liggéey ni ko waa Touba gëmee rek ñoom jàpp nañu daal diine moom balaa moo mën a ñàng balaa moo mën a mat nit ki dee mënal boppam. bu ko defee loo nga xam ne yàlla moo ko ko sant mu mën ko joxe te du ci am benn influence. kon euh, loolu moo ñu findi sëriñ bi nag ah wan na leen ni moom ubbil na leen ay buntam. ubbil na leen euh, li nga xam ne mooy Touba kon incha allah ñoom ñoo ci des euh, bu ñu fu jegee dina am liggéey yu yoo xam ne danañ ko sumb. ci wàllu def le suivi comme on dit pour xool li nga xam ne moom lañu mën a identifier ci ay projet ci Touba ñu mën ci waxtaan ñi nga xam ne ñoom ñoo féetewoo Touba. parce que ñoom ku ci nekk am nga loo bëgg am nga foo bëgg waaye incha allahu rabbi ñi nga xam ni ñoom bëgg nañ investir Touba danañ mën a accompagner ci ndigalu sëriñ bi ak kilifa ak ñi nga xam ni sëriñ bi danañ wala ak ñoom pour ñu mën a liggéey comme ni ma ko waxee problème yu bari nañu waaye ñëw nañu ak ay solution ñoom nag diine moo ni indi ak fexe ba rawale seen bopp ak seen alal te loolu lu am solo la tey gis nañ ko sànq sëriñ bi kontaan bi mu am ak ni mu leen ñaanle ak ni mu leen tatagalee ak maanaam ñeewante bi am ci ñoom loolu ñoom santir nañ ko te xam naa ni incha allahu rabbi dana gën a yaatu ay délégation yu gën a takku dinañ gën di ñëw incha allahu rabbi. incha allah merci beaucoup jërëjëf.